njàngat biñu def euh, moy tey jii ñu nek ci secteur bo xamantene dafa bëri ay euh, jeexital ci walum environnement jeexital yoyu même bu fekkee ni étude yi am nañ ay études d'impact yo xamné bu ci nek wax nañu naka lañ koy euh, naka lañ koy safarawé du té tey jii nit mën na liggéey ba ci kanam am problème wala marché bi yàqu su ko defee entreprise bi du mëna du mëna a liggéeyam yooyu ay ay ay risque la yoo xamante buñ koy jël il faut ñu am la nga xam dañ koy denc nga xam bu entreprise bu nekkatulee fiol bu amé problème état mëna a jël ay disposition ci xaalis bo xam dañ ko denc comme garantie ñu mëna a liggéey euh, liggéey li nga xamantene moy réhabilitation dafarat site bi ñu yàqoon wala bi ñu doon gas dafarat ko manam ni mu meloon pour mën ko rendre environnement. Euh, fond bi jot nañ ko démarrer depuis 2022 euh, nous avons signé ak négocier euh, chambre des mines bi nga association euh, opérateurs du Sénégal Nous avons négocié avec nous, nous avons nangu ak protocole commencé à verser le montant au niveau de la caisse de dépôt et consignation ñu obligation aussi obligation la boo xamante ne dañ ko war a def si fa nekk si suñu charte dëkk ak suñu loi yi donc euh, li ci des nag mooy ñu mën leen euh, ñu mën ci yokk ñi nga xam ne jotuñu woon dugg ci euh, garantie boobu mooy carrière yi ak ñeneen ñi nga xamante ne am nañu ay petite mine wala ay permis d'exploitation